sellal day ra <coughs> day laaf day setal doxalin bu dagan tàggat li ko ak li nga bañ yow ki ko sukkandiku mooy musrik bi nga tàggoo ak moom si jàkka ji loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk mbir mi léegi nekkatul diggante jullit bi ak yéefar bi waaye mu ngi nekk diggante julit bi ak musrik bi foofu la mbir mi nekk moo tax nañ xoolaat suñu bopp yu baax a baax jàkka ji yaa nga fees dell ak ay musrik musrik nag mooy koo xam ni day yore ay xamb di eh, jëfandikoo béjjën xar fa xuufa yi xuraafaat yi jàjj yi mbalit mii ak xaatim yii nga xam ne dafa mel ni foo biyee ci xaalis moom mooy li nga xam ne moo ci nekk nekk ci jàkka yi di jiite di nodd yore mbir yi yore daara yi mel ni ñoom ñooy nit ñu baax ñi te boo bëggee noob jigéen ci ñoom ngay jaar boo bëggee eh, eh, sàcc yi sàcc ñoom la ñuy aw pour ñu utal leen gàllaaj loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk kon nga xamne jabar kat yàlla dafa waxon ci alquran ne nañ ko rey loolu moy li nga xamne mo ci nek ndax ni moy nit ki gëna bon fil ardi ci kaw suuf ndax lépp loy def ci yak rek manam jabar kat ngay dem setti so bëggee dakk nit ci place am jabar kat ngay dem setti bo yag bëggee yak transport do adama jabar kat ngay setti bo bëggee yak marché bi jabar kat ngay setti kon jabar kat mustafa ta du bax ila yawmi diin mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax ci li ñuy def nii lii dafa nekk liggéey bu am solo nañ ci bàyyi xel bu baax képp koo xam ne bëgg ngaa tàggoog moom سابوي ورق نل الحمد لله رب العالمين سنت برم تعالى booy wàcc salal nga ne onze a mina a rajim nga jàng fatiha benn jàng benn ayatu kursi jàng benn falax ak naas nga ne allahumma salli ala sayyidina muhammad loolu moom doy na sëkk nga daal di jóg daal di dem ci bi daal di mbir foo jublu lépp looy def rek del wax onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yàlla la ko sant xam nga rek même booy jàng alquran yàlla daf laa wax ne nga muslu ci seytaane kon looy def a ne la muslul ci seytaane te yàlla moo bind seytaane te terewul booy jàng alxuraan daf naa la muslul ci seytaane kon lépp looy def rek na nga muslul ci seytaane loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk nga daal di jàng faatiya jàng ayta kursi jàng falaxi jàng naasi yii ngay gis maanaam tey xam nga yàlla boo ko gëmee ba pare mooy nga am tool léegi nag ñàkk nga ko ñàkk nga tool bi léegi ba ut bunt taxaw léegi jiyal dara ci biir nag parce que boo jiwul dara ci biir yàlla ji ci li ko neex ci li ko neex neexu mun nga am problème parce que mun na faa def ay ñax def ay garga mboose garab yoo xam ne doo ko soxla loolu mooy nag ah. gëm naa yàlla rek bàyyi sama bopp noonu loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk waaye nag tool boo ko ñagee ba pare danga nga ciy ji ay papaye def ci ay mango def ci ay fruits yi nga xam ne moom nga soxla loolu mooy ñaan yàlla loolu mooy jégalu yàlla loolu mooy sant borom bi taaraka wa taala yàlla moo tolloog loolu loolu boo demee sortu Fatir aya 2 yàlla nee na lépp lu ma yombal mu yomb lépp lu ma jafeel mu jafe maay ki am kattan ca maay ki not loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk alquran nag dafa taxawee ñetti bunt dafa am koo xam ne mokkal na ko waaye dégg ko am koo xam ne mokkal na ko ba pare dégg ko waaye nag xamul boromam ñetti mbir ñoo war a daje maanaam euh, mokkal alquran kooku benn la nga mën ko tajwid mu neex lool léegi nag nga dégg alquran mooy nga jàng aaya bi xam lu muy firi maanaam nga topp loolu dégg alquran la waaye mu des nag xam sa borom xam sa borom nag boo xasee am nag mën nga nekk docteur parce que li koy waral mooy yàlla subhanahu wa taala nee na maay feebaral man maay wéral kon boo xamee borom bi dëgër saar euh, tabaraka wa taala nga daal di mën a faj sa borom loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk hmm? loolu moom mooy xam sa borom nga xam ne tëlewul dara loolu mooy xam sa borom hmm. xam sa borom hmm. mooy nga xam ne tëlewul dara loolu mooy caabi nga soog a jàll nag ak yaqin su boobaa di nga mën a faju maanaam ci alquran doo bëri ay garab loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk mbokk yi maa ngi soo siwaat ci kàddu borom bi taaraka wa taala bagage ni nii bu doy waar nga xam ne fi mu nekk ni tey njabarkat yi dañoo lëmbee réew mi fii mu nekk nii ngay gis nii njabarkat yi jigéen yi sax ñoo ëpp yu góor yi xool leen télévision bi ni ñu ci mel ñu yaatal lool bu réew mi nekkoon réewu jullit xam nga ne njabarkat yi du ñu nekk ci télévision yi ak rajo yi di ngay ngay yi loolu nga ko xool bu baax a baax parce que li ko waral mooy nit ñi ay jullikat lañu mais dañ dul jullit mais bu ñu nekkoon ay jullit njabarkat du nekk ci koñ du nekk ci benn koñ parce que yàqkat la ndax li koy waral mooy loo bëgg a yàq ci dëkk bi rek maanaam suñu njabarkat yi ngeen jar loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk leen jox seen xaalis te mbalit ñu leen jox a ngi nii lii nga gis nii yëpp ci doomu aadama yi lañ ko jëlee lan lañ ko remplacé ay ñaan la ñu lay jox yoo xam ni boo ci sukkandikoo yàlla faj sa aajo bokk na ci boo yeewoo rek nga ne alhamdulilahi rabbil alamin nga ne ma waa oustaz yow sant googu ñu sant noonu farata la wala loo xam ne yaa ngi xalaat ma ni la farata la parce que bi kenn ki dafa dee yeewu ci jàmm bés bu yàlla sàkk loolu mooy am yow mi yeewu ci jàmm nag yow mi yeewu ci jàmm yow mi yeewu ci jàmm yaa war a wax alhamdulilahi rabbil alamin parce que yaa mën a faj ki feebar suul ki dee kon yaa war a sant sa borom léegi boo wàcc lal bi yaa ngi tàmbali bëccëg bu bees waaye nag bëccëg bi moom kumpa la am na ku ci war a dee am na ku war a dem kaso am na ku war a feebar am na ku war a tukki am na ku war a jàllu ci lalam ngoon te xamuñu koo kan la léegi loo war a wax nga ne auzu billahi mina seytaane rajim yàlla notal ma seytaane seytaane ñaata façon la seytaane ñaari façon la dafa am bu nit am bu jinne seytaane ins mooy bu nit bi seytaane jinne mooy bu jinne bi loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk ndax melokaan la noo xam la xam la buy nekk ci moom comme ni ngay nekk mécanicien comme ni ngay nekk électricien comme ni ngay nekk bureaucrate non lo xam-xam bobu di nekk ci ñom manam mu wax ci yow wala mu xol la wala mu dóor la wala mu jox la lekk wala nan mu daal di nekk toke ci yow lool yëpp nag soo ci bëggee mucc da ngay delloo mbir mi borom bi tabaraka wa taala bo yeewoo nga ni alhamdulilahi rabbil alamin alhamdu cant lillahi ñel na yàlla rabbil alamin kii borom bi ndefi su ko defee bo santee sa borom yàlla dana la yokk ay ngëneel amul kenn kuy xëy sant boromam te du ko bokkaale ngay torox ci àdduna mun te nekk loolu ndax li koy waral mooy yàlla boo ko santee daf lay yokk ay ngëneel loolu moo tax boo yeewoo rek nga ne alhamdulilahi rabbil alamin booy wàcc lal bi nga ne auzu billahi mina sheytan rajim ndax yaa ngi tàmbali bëccëg bu bees nga daal di jàng faatiya benn boo ko mokkalee yëpp ci rek am ci yaqin doy na sëg waaye boo mokkalee ay tukur